bokki jullit yi bokk ci lislam bi bokk ci limaan bi bokk yi ci lixsaan bi <clears throat> bokk ci lixsaanu lixsaan dellu si nañ ànd yen yéen fii ci Paradise TV ci seen jataayu firi alquran muy tafsirul quran yéen ngi ànd seen mbokk ci yàlla Baye Mokhtar Touré ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara bokk yi liggéey ci télévision bi góor ak jigéen mag ak ndaw di wax ne dellu si waat nañ ànd yen ci seen jataay bi nga xam ne dañuy waxtaanee téere bi yàlla bi téere bi nga xam ne pour ñëpp la pour fépp la pour fàww la tey nag ñi ngi dooree ci aaya bi borom bi di laaj ne yonentu yàlla muhammad gaa yi danañ la laaj ne weer yiñ xaraamal xeex xeex ci nu mel yàlla ne ko may tontu wax leen ne xeex ci bàkkaar la waaye li ko gën a nekk bakkaar nag mooy aaye dina yàlla ji aaye nit ñi njubam yàlla mi aaye nit ñi màkka ba kenn du fa mën a dem fitna bu bon boobu ngeen di def moo gën a garaw xeex ci weeruñ xormaal yi waxoon naa la ne weeruñ xormaal yi fukki weer yeeg ñaar am na ñeenti weer yoo xam ne dañ ko xormaal bi maanaa suñ doon xeex sax bu jotee dañuy bàyyi xeex ba repos mooy ñu noppale ko lu rut nag dañ leen ci songu bu fekkee dañ cee songu julit ñi nag foog ñi xeex ci ndax kenn du toog rek yàccaaral ñu song la ñu naan ci weeruñ xormaal lañ nekk boo déggee weeruñ xormaal yi duñ ca xeex mooy duñ ca takk xare dem songi kenn ñoom jullit ñi mooy lan diggi tëbëski ak tabaski ak tamxaret ak euh, ndeyi koor loolu la ko olof yi di waxee diggi tubaski tubaski tam xaret koor waaye buñ demoon ci arab ba sul qaxda la sul hijja muharam ak euh, rajab rajabul fard nag moom moo beru nekk ca boori ñoom baraxlu waaye ñetti weer yi ñoom ñoo toppante ñeenti weer yi nag ñoom lañu wax ne mooy ñeenti weer yi ñu xormaal ci islaam ba nga xam ne bu xeex jotaan sax bu dégg nga weer yi moom duñ ci takk xare moom waaye ànd ak leen ci songu dañuy xeex ma wax ne mu am benn xare boo xam ne suraayaa boo déggee suraaya mooy xare boo xam ne dégg nga xare yi nga xam ne yonent bi demul dafay eble léegi nag ebaloon na leen ñi dem waaye ci mujjante li dégg nga maamam koor ci lañ xeex ndeka rey nañ benn xéeféer ca njëlbeenu baraxul euh, dégg nga ndeyi koor ci njëlbeenu ndeyi koor muy rajab mu bokk ci weer yi ñaaraamal xeex mu mel ni isina wax ju sew ñoom dañ waxoon ne weer yi ñaaraamal xeex duñ ci xeex te xeex nañ ci soo demee ci mufassiroon yi foofu la ñuy isi sababu nusul bi sonn nañ ci lool waaye dëgg dëgg dëgg dëgg li tax a jóg aaya bi danañ ci ñëw <clears throat> borom bi wax na ci suratu tawba ne inna xeddata suhuri hendallahi isna asara saran fi kitaabillah waaw minha arbaatul xurum maanaam fukki weer yeeg ñaar dafa am fa yàlla am nag ñeenti weer yoo xam ne dañ ko ormaal boo ñëwee ci tafsir bi fukki weer ak ñaar dangay dooree ci weeru koor xori diggi tëbaski waaw tamxaret diggi gàmmu gàmmu rakki gàmmu rakkaatu gàmmu maamam koor ndeyi koor baraxlu nga ñëwaat weeru koor kon fukki weer yi ak ñaar am na ñi jël ci ñeenti weeri yi ñu ormaal mooy lan mooy sul xaxda sul hijja muharam rajab ci olof nga ne diggi tabaski tabaski tamxarit ak ndeyi muy ñeenti weer yi nga xam ne dañ ko ormaal inna xeddatu sóori xendallaayi nag bu fekkee weer ya fa yàlla la nag su boobaa ñeenti weer yañ ormaal mën nga koo seeti rek ca maqaama ya maqaama diina ya foofa danga fa am al islaamu am fa imaan am fa ixsaan soo xamee islaam am na ñett yu nekk ci ronam muy ñeent islaam ak ñetti yi muy ñeent tawbatu istiqaama taqwa soo demee ci liimaan ba ca topp am na ñeent ñett yu nekk ci ronam booleeg liimaan ba muy ñeent te mooy lan a sidqu ixlaas tumaanina soo demee ci lixsaan ba ko ñetteel am na ñett yu nekk ci ronam ixsaan ak ñetteel ñetti wàccuwaay mi muy ñeent mooy lan muraqaba musaahada maarifa soo boolee ñetti ñeent mu jox la fukk ak ñaar muy ñeenti weeriñ hormaal ñeenti weer yi ñu mooy fukki weer ak ngoog soo ci jëlee ñeenti weer yi ñu xormaal da am weeri ixsaan ya islaam iman ixsaan ixsaan ak muraqaba musaada maarifa ñeenti ñeenti maqaama yoo xam ne yuñ xormaal lañ duhut ne kum neex rek nga bokk ci ñu bëree bëri duñ ci yegg ndax dañ ko weddi moo tax waaye islaam nim mu amee noonu la liimaan amee noonu la lixsaan amee islaam dafa am islaamu islaam ci biiram am imaanu islaam am ixsaanu islaam soo ñëwee ci liimaan dafa am liimaanu liman dégg dafa am dégg nga eh, lislaam ci biir liimaan am eh, liman ci bit liman am lixsaan ci biir liimaan soo ñëwee ci ixsaan dafa am islaam ci biir ixsaan am imaan ci bit ixsaan am ima dégg nga ixsaan ci biir ixsaan ixsaan ci biir ixsaan mooy li la sina axsanoo husna wa siyaada li la sina axsanoo ñi dem ba àgg ci ixsaan husna danañ xamaat siyaa dégg nga lu rafet li la sina axsanoo bopp hisib la husna wa siyaada li la sina benn la husna ñaar wa siyaada kon nga déggee ci ne ixsaan eh, bi ak ñeenti maqaamaam yi eh, ñetti ma ñetti wàccuwaayam yi boo ko boolee daf lay jox ñeenti weer yi ñu ormaal nga xam ne duhut ñëpp ñoo cay mën a àgg ñoo mën a xam lañ cay wax ak lañ cay junji kon fukki weer yi ak ñaar am na ñeenti weer yi ormaal nga xam ne suñ xeexaan ba yegg ci dañuy teg ngànnaay yi lu rut dañ leen ci song borom bi nee na yonti yàlla muhammadu yes aloo naka danañu laaj la anni saaril araami ci xeex ci dégg nga anni saaril araami ci weer yi ñu ormaal fii xeex ci la ko laaj naan la ah sa gaay yi nag nañ lañ def xeex ci weer yi ñu moom nu mel xul wax leen ne xitaalun xeex fii ci weer yi ñu xormaal kabirun bakkaar bu màgg la waaye am na ko gën a garaaw de wa saddoo haaye nit ñi an sabilillahi ci diinaa yàlla ji wa kufrun bihi ak weddi diinaa yàlla ji wa dégg nga wal masjidil haraami ak haaye jàkk ju ñu xormaal ji mooy eh, haaye nit ñi dem aji wa ixraaju ahlihi ak génne waa dëkk bi ca dëkk ba dégg nga wa ixraaju ahlihi ak génne waa dëkk bi minu ci dëkk ba te mooy génne giñ génne yonti yàlla maamat ak jullit ñi ak akbaru moo gën a bakkaaru moo gën a garaaw xendalaay fa yàlla gis nga wax bi dangeen ngeen bëgg a wax rek xeex ci weer ñu xormaali ne saaba yi xeex nañ ci kon lañ aaye woon def nañ ko loolu de aaye nañ ko garaaw na waaye li ko gën a garaaw mooy yéen da ngeen am jikko yu ñaaw wasaddu an sabilillah aaye gi ngeen di aaye nit ñi diinaa yàlla ji akbaru moo ëpp bàkkaar moo gën a garaaw xeex ci wéeruñ xormaali wa kufrun bihi weddi gi ngeen weddi yontu yàlla Muhammad weddi alquran akbaru moo gën a garaaw moo gën a bëri bàkkaar moo gën a garaaw fa yàlla dégg nga ci dégg nga xitaalun fii xeex ci biit wéeruñ xormaali yooyu dégg nga wasaddoo anil masjid al haraami ba tey wagoogu noonu ñi ngi ko atif ci wasaddoo ani sabilillahi wa ba tey al masjidil alxaraami kon ba tey aaya jàkka juñ ormal ji ba ba kenn du fa mën a dem génne ña nekkoon ca dëkk ba loola mooy ay bakkaar yoo xam ne ñoo gën a garaaw te yéen def ngeen ko te ci ngeen dëkk mangoo wal fitnatu yàlla nee na wal fitnatu bokkaale ak fitna jim mën a jur akbaru moo gën a garaaw minal xadli ci rey giñ leen di rey bi max naa xeex bi ngeen di xeex ak ñoom ba am ñu ci dee ci yéen lu muy naqari naqari ngeen bàyyi fitna ci kaw suuf muy bokkaale moo ko gën a garaw kon bokkaale ci kaw suuf dee ko gën loolu mooy wax ci moo tax mu jar ngeen génn seen bakkan pour bokkaale jeex ci kaw suuf maanaam jaamab yàlla bi di dund di bokkaaleeg yàlla dee moo ko gën loolu la nga dégg benn waaye bu la wax naa la ma ne sama dund bi dee sax ko gën lu tax pour dund bi dafa métti dafa am ay jafe ba tax mu bëgg a dee waaye jafe-jafe bi gën a garaaw nga xam ne dee ko gën mooy bokkaale ak yàlla wal fitnatu akbaru min al qatli léegi nag yàlla dina xamal gaay na leen ñoom wala yasaaloona yuqaatiluunakum hatta yuradduukum han diinikum in istataau nee na daal maa ngi leen di xamal ne ngembal saay-saay borom di ko tekki du ko tekki de daf ko yolomal rek bu jekkoo takkaat ko loolu la aaya bi yàlla nee a jullit ñi ba ngeen boo ngeen xam ne ñi leen noonoo démb ca aboo jahlin ñoo leen noonoo ba tey ña leen noonoo démb ca namrud te ibrahima ña leen noonoo démb demet dégg nga ci yonent yu leen jiitu woon seeni doom ak seeni sët ñoo fi nekk ba léegi duñ dañ mukk mukk di leen xeex feeg ñi ngi koy man waaw seen roxo yaa ngi ci seen jëmm yi ñi ngi ànd ak seen xel yi di mën a xeex di mën a def seeni pexe duñ leen bàyyi léegi nag loolu luñ ciy jàngee mooy kon jullit bi moom tamit fu mu mën a toll rek na na na continuer combat bi bu mu bàyyi mukk bu bu bu xam nga tey ñu la waxee ne eh, diw sàngam san noonu la mu ngi ci kaw mu ngi ci sa kaw mu ngi lay waajal yow la bëgg a kii doo toq naa di xoole di nga dem ut ut ut ay cumbeekaay ut loo def ba bu ëllëgee bu ñëwee nga mën a defanteeg moom kon bu ñu yàlla ne seeni noon dégg nga ñi ngi noonoo diina te ñu ngi fexe pour yàq seeni njaboot te duñ dañ mukk nag di xeex ak yéen nañ doon xeexee yónentu ya kon la ci lañ cay déggee ñun mooy ñu góorgóorlu ñun tam fu ñu toll rek ñu takk xaree rek fase fexe waajal suñ bopp duwul xeexi jaasi nag waaye xeex bi dëgg dëgg dëgg xeexi mental la muy xel borom bi nee na walaa yesaaloona duñ deñ dëñ walaa yesaaloona duñ bàyyi mukk ñoom xéeféer yi yuqaatiloonakum di leen xeex xattaa yarudduukum ba tañ ñu delloo leen an diinikum ba ngeen bàyyi seen a ñëw fekk si leen inistataama bu dee am nañ kattan li lii moom kàddu yàlla yàlla nee na xeex boobu ma ngeen doon def ca saahir di dóorante jaasi xeex ba du dog man ngeen a dem ba bàyyi xeex bi ba kenn dootul xeex sa morom ci wàllu takk xare waaye xeex ba nag du jeex ci suuf xeexi xel la xeexi waajal sa bopp xeexi kàddu xeexi eh, tuumalante xeexi yàq njaboot ci yooyu lañ leen di nekk di leen xeex jamono bu ne duñ denc ci loolu di leen xeex fekk ñi koy man li ayab alquran la lii foog naa ne buñ ko xamee war nañoo xam ne kon euh, nof lay amut bu fekkee suñuy noon yàlla mi leen xam may leen kàttan moo moo moo ñu xamal ne ñoom duñ noppaleku duñ noppaleku fuñ toll ñi ngee waaj fuñ toll ñi ngee xeex fuñ toll ñi ngee defante kon yéw itam ñu ngi la wax ne yow jullit bi foo tollu dal góorgóorlu dal fagaru fas yéene buñ la gañee ci xeex bi waaw moo tax mu ne walaa yesaaluuna duñ dañ mukk ñoom xéeféer yi walaa yesaaluuna duñ bàyyi mukk yuqaatilunakum di leen xeex yéen jullit ñi gëm yàlla xataa yuradduukum ba te ñu delloo leen an diinikum ba ngeen bàyyi seen diina feeg bàyyiwu leen seen diina dem fekki leen ñoom duñ bàyyi xeex bi in istataahu fekk ñu ngi koy man moo tax góor gi daan nañu wax nañu ngembal saay-saay borom du ko tekki daf koy yolomal léeg-léeg rek mën naa am ab diir mu mel ni ku la féexal waaye bu jekkoo rek takkaat ko li ayab alquran la sama borom ne waaye waman yartadit ku murtad na min kum ci yéen jullit ñaxan diini yi mu bàyyi diinaam fa yëmmun mu dee ca loola wow wata moom bi muy faatu kaafirun héeféer la fa ulaayika ñooña wala kooka habitat yàqu na amalum seen jëf fa ulaayika ñooña habitat yàqu na amalum seen jëf mboolem luñ def ci lu baax amul njëriñ fi duniyaa ci haduna wal axirat ak ci àllaaxira wa ulaayika ñooña sax di asaabu naari ñooy boromi safara ñoo koy dëkkee hum ñoom xaalidoona fiyaa dañ cay sax kon borom bi tabaraka wa ci aaya bi dafay jàngale eh, ne nit ki wala jullit bi bu mu yàccaaral nay bàyyi xelam jamono bu ne ne mu ngi dëkk ak ay noon yoo xam ne dañ koy yàqal te bu la óoree ne yàgg ay noon a dëkk yoo xam ne dañ lay yàqal dëgg-dëgg war laa toog rek di xoole war ngaa jóg ci sa bopp war ngaa jóg ci sa bopp a ñun ci sa wàllu saayir nii rek léeg-léeg nga gis ko xam def la naan jogal ci sa bopp yow gaa yaa ngi ci sa kaw de ñu ngi lay xeex nangam nangam liggéeyukaay ba nii sa sëy bi nii nangam nangam jogal su ko defee nga jog topp sëriñ si lu tax yaa ngay jog di def ci sa bopp pour bu sa sëy bi yàqu yaa ngay jog def ci sa pour sa njaboot yaa ngay jog di sa bopp pour sa liggéeyukaay loolu niñ ko gëmee ñun loolu la alquran di saxal nii ci aaya bi borom bi nee na xéefiir yi leen di xeex di yàq seen xaqiida seen pas-pas yi di yàq seeni doom ba diine islaam dootu leen ko jëfandikoo ñoom itam duñ tekki seeni ngem bu mukk dañ koy yolomal rek waaye yàlla nee na yu wala yusaaloona yuqaatiluunakum fuñ toll ñu ngi ci combat léegi nag yow yaa war a xam yan xéeféer la ak combat bi naka la xéeféer bi mën naa nekk sax sa way jur yi xéeféer bi xéeféer yi ma ne mën naa nekk say way jur parce que nit léeg-léeg nga am way jur yoo xam ne dangaa daw jëm ci yàlla ñoom ñi lay tere waaw léeg-léeg mën naa nekk say doom nga daw jëm ci yàlla ñi lay naa nekk say jabar léeg-léeg mu nekk jëkkër ji léeg-léeg mu nekk bos bi ci liggéeyukaay bi waaye léeg-léeg mu nekk sa bakkan bi ànd ak yow xéeféer bi nga xam ne lu bàyyi combat am bi dama ne léeg mën naa nekk di sa bakkan bi ànd ak yow moom xam nga ne fu mu toll rek lu la neex la bëgg fooy amee xaalis fooy amee bànneex moom yooyee moom xoolut noo koy amee xoolut ndax lor nga doom aadama bi xoolut ndax yaa ngi ci soxor xoolut dara moom lim xool mooy nga am li nga bëgg rek kon kooku du dañ mukk di la xeex te lam lay xeexee mooy dafay fexe ba yàq sa xaqiida ba nga ñàkk yàlla ba nga sori yàlla ba doo xam yàlla nga mujj am problème kon foo toll na nga ut na nga ut ku la dimbale ci xeex bi xam nga mbër du dem ci làmb ji moom kenn seetloo la ko mbër moo fi gis lu mu mën a mën a bëree ci ñi nga xam ne ñooy topp làmb dañuy gis ne mbër mi mu nga jógee ca baay ak yaay ñu ngi koy ñaanal mbër maa nga jógee ca ay ñu koy train mbër maa nga jógee ca ñu koy support loolu te moom kenn rek mënoon naa dem bëri ji kon yow kenn itam yaa ngi ci combat diina islaam sa pas-pasu diina am na ñu taxaw pour sàcc ko sa pas-pasu diina am na ñu taxaw pour soppi ko say doom am na ñu taxaw pour soppi leen ci diina ji say soxnaa ki say dëkkandoor am na ñu taxaw pour yàq seen diina léegi nag yow yaa war a taxaw pour xeex kon combat boobu nag léegi kan ñen ñooy sa àndandoor ci combat da nga war a góorgóorlu ci bakkan bi mu am nafsu xalqi ak nafsu xaq nga fexe ba nga xam ne bakkan bi nga xam ne moo bëgg dëgg di dund dëgg nga fexe mu dund nga koy dimbale loolu li la ci dimbale bokk na ci mooy nga am sëriñ nga am ku la jàppale nga am ku lay support nga am ku lay waxal nga am ko doyloo waaye nit koo xam ne kenn doyul la yow di dégluwu la kenn yow internet bi rek doy na la su kii waxee lii kële wax la la ñu dajale ko ci sa xol bi daf lay confuse loo rek réer la la dolli rek waaye doo ci jubee ànd ak yunti yàlla muhammadu te ba muy ànd ak moom mag la mënatula téye alawa ne mu ngay jàng baasin mi mara waaye la mokal yëpp ci jamono bi la ko mokkal mbaaxam ngi yëpp mu ngi ko jëlee foofu ana Omar ibnu Xataab ak nim meloon ana bu bun Affaan ana Ali ibn Abi Taalibin ana ana ana ana ana ana ñoom ñëpp waaw seen ak mbaax ñi ngi ko jëlee ci yunti yàlla mama lu tax parce que dañ ànd ak moom nag mooy tey dara du wecceeku soo waxee ne tey mooy jamono joo xam ne bu kenn topp kenn bu kenn jéem a xam lu dara bu kenn jéem moom laa sa mobile bi doy na la loo bëgg a xam duggal ci ustaas yi ustaas sàngam wax na nangam déglu naa ko ci tere ba wax na nangam yooyu yëpp baax na waaye boo bañ a confis demal uti koy ànd ak yow kuy kuy dund yàlla ñuy dund du dee mooy yàlla ji la mat yàlla waaye sëriñ biy dund te moom man laa dimbale ci pay yàlla bi sëriñ boobu moom mat sëriñ utal cumbeekaay ci xeex bi utal ku la jàppale ci xeex bi ndax yàlla nee na xeex bi kat gaa yi ñoom duñ bàyyi jamono bu ne ñi ngi xeex rek waaye ku ci fexe nag ba bàyyi sa diina maanaam ñi xeex la ba génn la ci sa xaqiida nga dee ca lolo yàqu nga ñi la ko aaya bi waxee wa man yartadit wa man yartadit minkum an diinihi fa yemmut woo wa kaafirun fa ulaayika habitat ahmaaluhum fi dunia wal axira nag yàlla nee ku ci sàggan ci combat bi bañ gañe kon yàqu nga combat bi moom du jeex moom xeex bi mu ngi fi waaw ci man ci yow ci góor gi ci jigéen ci mag mi ci ndaw mi boo gisee ñiy jàngaloo xale yi sax loolu yëpp combat bi rek lañ bëgg ñu am matériel bu ñu dimbalee seen bopp ci combat bi ndax aduna mi moom ku ko sóobu ku ko sóoru rek sóoru nga komba bakkan baa ngi lay def loolu lu nekk jamono bu nekk waaw bu nekk rek bànneexi bakkan yi xalal ji bëri na na nga fexe jot ci soxna si rafet na fexeel ba jot ci nangam nangam kër gii de suma ko mënoon am oto bi su ci mënoon a jot yu neex yooyu la bakkan bi ñëw tegal la na la waaw pour nga jot ci foog nga nit pour nga jot ci foog nga jël paati jàmbur pour nga jot ci foog nga dem ci sëriñ bi mu defal la nangam yu bon yooyu yëpp danga ko mën a def ngir jot ci loola. combat boobu nag nga xam ne bakkan baa ngi koy def ak yow moom la alquran ne combat boobu du jeex mukk fu mu toll mu ngi xeex ak yow yow nag yaa war a jóg yow. waaye wa man yartadid minkum an diinihi fa yamru wa kaafirun fa ulaayika habitat amaalu ay ku sàggan bañ gañe la ci combat bi yàlla nee na yàqu nga waaw fi dunia wal axira ku yàqu ci dunia ak alaxira loola deseeti kon yàqu nga te dootoo jagati wa ulaayika asaabu naari hum fiha xaalidoon kon xeex baa ngoog aduna ngoog géej soobu nga jëf ju baax ji mooy gi góor góorgóorlul ci yiw waaye na nga am capitaine bu lay dimbale ci dawal bi nag te loolu mooy ku lay omat wa tabix sabila man anaaba ilayya toppal yoonu ku delsi ci man yàlla lii dee la yàlla wax du mën a ñàkk jafe-jafe biñ toll yépp li ñu ko yóbbee mooy nangoo na ñu bari ci ñun nanguwuñu ut kilifa waaw mën nañu am royukaay ci zahir nag musicien ba suñu royukaay la football footballoo bale suñu suñu royukaay la mbërëm làmb male suñ royukaay la ba nga xam ne buñ watoo nuñ watoo da ngeen xale yi dañ koy watoo nuñ soloo ñu soloo ko luñ wax ñu jël wax ja di ko tasaare di ko di di ko sàbbal guddeeg bëccëg fuñ toll wax jam wax moom la ñuy jël internet bi jël ko diw sàngam wax na nangam moom daal mu ngi noonu yu yu ñoro di yooyu moom la ñuy jël rek di ko di ko di di ko di ko bànneexoo su ko defee nag euh, amut amuñ amuñ référence utuñ benn royukaay Euh, ci wàllu yàlla utuñ ku ñuy omat utuñ ku ñuy laaj diina utuñ ku ñuy gàgganti ci suñ gag-gag waaye daal fuñ toll ñi ngi ut ay royukaay yoo xam ne adduna rek lañ ñuy jox loolu moo ñuy jox problème yàlla nee na wa man yartadi minkum an diini fa yamut wa kaafir walaayka bitat amaalahum fi dunia wal axira yaa nañ yàlla musal ci perte ci adduna perte ci àllaaxira ñi dem ci beneen aaya mooy di tagg ñi nga xam ne dañoo gàddaay bàyyi seen réew bokk na ci mooy ñi jóge woon Màkka dem ñëw Afrique ci Éthiopie Ousmane bun Affan jiite woon leen ak soxnaam sa di doomi yonti yàlla Muhammad muy roxee ak ña nga xam ne gàddaay nañ gannaaw gi jógee Màkka ñëw Medina ak gannaaw gi képp ku gàddaayati ci dëkk ndax lu bon wala nga gàddaay fa ndéeg man la faa doxal sa diina nga toxu dem ci beneen dëkk comme ni nga gisee wëllu yàlla yu bari def ko gàddaay yooyu yàlla daf koy fay nit boo nekkee ci barab man la faa am jàmm man la faa doxal sa diina man la faa wéetal yàlla na nga taraayee génn fa dem foo mën a wéetalee yàlla ndax yàgg yàgg faatu dana ñëw ci yow waaw borom bi ne innal lazina naka gaañi nga xam ne amano gëm nañ wal lazina ak ña nga xam ne haajaroo gàddaay nañ wa jaahadoo ñi nangoo jihaad fi sabilillahi ci yëkkati diinaa yàlla ji ulaayika ñooña yar joona danañu yaakaar rahmatallahi yërmande yàlla mooy payam wallaahu yàlla xafoorun mooy jéggalekat bi rahimun ku yërëm julit la bu wellëgee ca kanamam ñu way gëm yàlla yi dina leen yërëm dana leen teral yal nañ ci yàlla boole kon aaya bii ñu dugg moom it muy jàngale mooy gëm yàlla gàddaay jihaad ci yoonu yàlla muy ñett di masaayir yi gëm yàlla benn doyut nga nangoo gàddaay dem ànd yàlla mooy ànd ak ñun yàlla ñaar ñetteel ba nga nangoo yëngatu mooy jihaad nangoo sonn ci yëkkati diini islaam muy ñett ulaayka yarjuuna rahmatallah ah kon yërmande yàlla moom neexu da jot wallahu xafuru kon ca ñeenteel ba la ñuy yaakaare yërmande yàlla kon ndeka ca ñeenteel ba gannaaw masaayiri salaasa yi ñeenteel ba sax dem fa taxul nga mucc fokk nga góorgóorlu rek ndax foofa yaakaar rek moo fa nekk lu mbir ya leer leer soo góorgóorlu wut mën nga faa yàqoo fa ñu war a deferoo na ku fa yàqoo a baaxati kon borom bi nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla kon imaan mooy foundation bi nit ki bu fekkee gëmul yàlla lum defit euh, duñ ko tuddee jaamu yàlla donte la yàlla ku baax la ku bëri yërmande la waaye imaan daal ngay mën a am nga jëf yàlla man a yàlla jàpp ne kii jëf na lu baax ndax dafa gëm yàlla gannaaw boo gëmee yàlla itam nanga gàddaay gàddaay ñaar la ci jamono yonent bi gàddaay moo doon koo xam ne euh, gëm nga yàlla dañoo bëgg nga fekk yonentu yàlla muhammadu ca Medina boo nekkee màkk ak beneen dëkk boo mën a nekk lu tax su ko defee ñëpp dajee ci gannaawam mbooloo mën a am ndax bu leen jullit ñi song yéeféeri songee buñ génnee ñi xam ne ñii borom mbooloo lañ su ko defee nañ ko defee woon ca badar def ko ci fatu makkata def ko ci uhud def ko def ko ba mujj islaam am doole loolu lañ bëgg moo ñi bëggoon ci jamono booba ku gëm yàlla ñee la gàddaayal nga ñëw waaye gannaaw fatu makkata bu mu paasee mooy gannaaw buñ demee ba ubbi màkka ba yonent yàlla Muhammad nekk alkaali màkka gàddaay booba dafa jeex ku nekk foo nekkati ci kaw suuf soo gëmee yàlla mën nga faa toog jaamu fa yàlla waaw léeg-léeg nga ñëw siyaare si yonent yàlla Muhammad wala nga seet si ko gannaaw fatu màkkata ñaareeli gàddaay bi nag mooy gàddaay bi nga xam ne moom du jeex mukk mooy gàddaay jógee ci réewam mooy yàlla dem ca réewam topp yàlla gàddaay jógee ci bakkan bi nga xam ne daf lay digal lu bon dégg nga di la jox bànneex yu xaraam yi nga gàddaay ko dem ànd ak bakkan bi nga xam ne daf lay jokkaleek sa borom daf lay ah, dégg nga xamal sa borom daf lay yombalal ah, nekk gu rafet ànd say morom kon ñaari gàddaay yaa ngoog gàddaay lu naqadi yàlla dem ci lu neex yàlla ba léegi gàddaay la boo xam ne du fi jógee gàddaay bakkan bi lay sonnal nii di la di la di la di la di lay dugal ci ay bànneexi bakkan yu lay yu lay yu lay jural problème nga gàddaay jëm ci bakkan muy nafsu xalqiya bi ah, nafsu xàq bi nga xam ne mooy bakkan bi bi bi yàlla di wax yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya su booba bakkan boobu ah, moom dañoo bëgg nga nga xeex pour egg foofa kon gàddaayee ci bakkan bi dem ca bakkan bi waxoon bi yuusufa doon wax ne inna nafsa la amaratu bi suu nga gàddaay fa jëm ca bakkan bi nga xam ne mooy mooy ya ayatu an nafsul mutmainna ba balaa bakkan baa yeggee ca mar mardiya fa duxuli fee baadi wa duxuli jannati ay martaba bala yoo xam ne ñu ngi taxaw ci kanam jaam bi kon gàddaay ci suufu xéeféer yi jëm ci suufu jullit ña gàddaay la xoon waaye gàddaay boobu fatu makkata la jeex gàddaay nag ci bakkan bakkanu bànneex bi wala ci réewam mooy yàlla wala ci barab bu ñuy moyee yàlla wala gàddaay ci nit ñoo xam ne dañ ànd ak yow di la moyloo yàlla nga gàddaay jëm ci nit ñoo xam ne danga ànd ak ñoom ñu jëmee la ci yàlla wala nga gàddaay jëm ci bakkan bi lay oo jëmee ci yàlla gàddaay boobu moom du jeex mukk waaw ni nga xamee ne jihaad yi ñaar la jihaadul asqar ak jihaadul akbar jihaadul asqar mooy jihaad bu ndaw bi ndax gana gannaaw bu mu waxee wala seen haajaroo wa jaahadoo la wax wa jaahadoo moom tamit ñaari xaaj la jihaad ju ndaw ji mooy ànd ak yunti yàlla ma ma dem xeexi badar ak yemel ni moom ca Uhud ak fatu makkata loolu moo doon jihaad ju ndaw ji jihaad ju mag ji mooy fexe ba xeex ak sa bakkan bi ba wéetal yàlla ba nangul yàlla ba génne soxor ak kiñaan ci xol bi ba pare nga continuer nag di jihaad ba mën a defar sa njaboot nga continuer di jihaad ba mën a defar jaami yàlla yi ci biti loolu mooy jihaad ji gën a baax mooy jihaad ba defar doomu aadama amul benn jihaad bu toll noonu yontu yàlla muhammadu noon na defar benn nit rek maanaam nga defar ko ba mu baax mu ngi tolloog nga saraxe lu mel ni 4 x bu bees wala pajaro moto yi gën a seer léegi ba ca gën a seer moto yi mujj génn ba ca gën a seer nga saraxe ko nga joxe ko la nga cay amee ci yool defar benn bakkana ko gën moo ko ëpp ci yàlla ndax gëléem gam doon wax moo tolloog loolu rek islaam moom léppam lépp la danga koy jegeel ci nit ñi seen jamono ñi mën koo dégg su ko defee kon gàddaay nekk na ñaar jihaad nekk na ñaar jihaad ci yoonu yàlla mooy jihaad ca xeexi jaasiya ca fett ga loola moom jeex na qad tabayana rusdu min alxayyi wa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa lan fisaama laha waaye nag am na jihaad ju des te du jeex mukk mooy la alquran waxoon ne walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yuradduukum an diinikum gaa yi duñ dëñ ñoom noon yi di leen xeex fekk jekkuñ leen ba delloo leen ngeen bàyyi seen diina kon jihaad jooju mooy combat boobu moom la aaya bi di dëggal rek wa jaahadoo fi sabilillah mooy ngeen jihaad jëm ci yoonu yàlla wa jaahadoo fillaahi ak ngeen jihaad ci yàlla du benn jihaad ju ndaw ji mooy wa jaahadoo fi sabilillaahi kooku mooy xeex ak jaas jeex na wa jaahadoo fillaahi mooy jihaad jëm ca yàlla moom du jeex mooy dangay fexe nga xeex bakkan bi pour egg ci yàlla jihaad ju njëkk ji bu xéeféer bi reyee jullit bi dégg nga jullit bi dem àjjana bu julit jullit bi rayee xéeféer bi bu julit bi rayee xéeféer bi xéeféer ba dem safara bu xéeféer bi rayee jullit bi jullit bi dem àjjana jullit bi bu rayee xéeféer bi moom dana dem àjjana xéeféer bi dem safara waaye jihaad ju ndaw jihaad ju mag ji wa jaahadoo fillaahi kon bu xee ba rayee xéeféer ba ñoom ñëpp àjjana lañ jëm waaw bu xéeféer bi rayee jullit bi dem safara loolu mooy lan mooy xeex sa bakkan kuy xeex ak bakkanam soo notee bakkan bi ba xacc ko ba nafsu xalqiya bi mooy bakkan bi lay jëmee ci bànneexi bakkan yi di def loolu araam ànd ak yow ngeen dem defi lu baax yéen ñëpp ngeen texe soo su bakkan boobu nga xam ne moo lay def loolu bon bula la gañee ba xacc la ba yóbbu la ci yóbbu nafsu xalqiya bi ci def lu nafsu xàqu bi ci def lu bon ngeen ànd dem safara kon ñaari xare yaa ngoog wa jaahadoo fi sabilillahi ak wa jaahadoo fillaahi duñ benn wallazina jaahadoo fiina la nahdiyannahum subulana yàlla nee na ñi jihaad ci ñun ñu jox leen suñ subul yi mooy yoon yi leen éggaloo ci pay yàlla bi waaw yoon yi leen di éggaloo ci pay yàlla waaye ñiy xeex ci diinaa yàlla ji nag mooy ñi nga xam ne ñooy xeex pour diinaa yàlla ji yëkkateku su boobaa mooy ña doon xeex démb ak jaas yi kon xeex bi du jeex mooy xeex bi nga xam ne nit kaa koy xeex ak bakkanam awalan ut ndimbal ut sëriñ mu dimbale ko ba mu am fatu am fanaaw am baqaaw wax laa ilaha illallah lawul ak saari baatinu wax muhammadu rasulullah su ko defee mu am fanaaw baqaaw lu yaatu la ci ñi koy dund su fekkee loolu nag amut dana jafe lool nga mën a am tawhid bi ñu soxla woon tawhid bi lu muy rafet rafet ci làmmeñ wi dafay des ci xol bi ndax yàlla wéetal ko te xamuloo ko mënta nekk boo xamul yàlla doo ko mën a wéetal moo tax jihaat ci yàlla ak jihaat ci yoonu yàlla du benn mu ngi mel ni daw jëm ci jaamu yàlla ak daw jëm ci yàlla isaa noodiye li salaati min yowmil jumaati fasaw ila sikrillah waaye nag bokk rek fa fiiroo ilallaahi duñ benn xam nga làng wi ji alxuraan yi nit ñi danañ koy firi waaye boo gisee mu xaw a jafe mooy dangay jël eh, aaya bale ak aaya bale ak aaya bale yëpp boole leen ñi nekk benn te duñ benn su yàlla waxee ne isa nuudiya lissalaati min yowmi ljumaati fasaw ila zikrillaahi waaxu jëm ca tudd yàlla mooy jaamu yàlla bokkut ak aaya ba ca saariyaati ne fafiiru daw leen illa jëm ci yàlla du benn wa anibu ila rabbikum wa aslimu dellu leen ci yàlla ngeen jébbal ko seen bopp waaw wa man aslama waccahu lillaahi wa man ahsana diina mi man aslama waccowo lillaahi wa muhsina kenn du gën a rafet diina ku jébbal sa bopp yàlla kon ndeke jihaat ji noonu la mel nga jihaat ci diina yàlla muy yoonu yàlla bokku da nga jihaat ci yàlla jihaat ci diina yàlla ji moom mooy leebul bu njëkk bi loolu képp ku jàng góor góorgóorlu euh, di jàngale bu xeex jotee nga jël jaasi dem xeexi yaa ngi jihaat ci yoonu yàlla waaye jihaat ci yàlla moom sa bopp ngay njëkkee yow ngay njëkk a sa bopp ba xëcc sa bopp delloo ko ci yàlla loolu mënuloo ko lu da am ndimbal ci aaya wa ani aaya ba waxoon ne wa bi toppal sabila man anaaba ilayya yoonu ku dellu ci man yàlla kon jihaad jàngoog yàlla nee na inna allazina amanu wa amilu saalihaati inna allazina amanu wallazina haajaru wa jaahadoo fi sabilillah muy masaayiri salaasa yi ulaayika yarjuuna rahmatallah wallahu xafuru rahim kon ñaari gàddaay la ak ñaari jihaad dégg nga ko waaw ñi dem ci beneen aaya boo xam ne moom day laajte mbiram sàngara ak karta sàngara carte mosta baax waaye ci njëlbeenu lislaam ci maslaha ak yonentu yàlla muhammadu biñ ko yónneegut moom masut koo jëfandikoo waaye booba am na ñu koy jëfandikoo muy sàngara carte booba ñaari arab yi gënoon a fonk bokk na ci mooy naan sàngara ak carte bu bu bëccëgee ñi ngay carte pour am xaalis seen xaalis yépp ñu ngi koy jëlee ci carte ak riba moo tax alquran ñëw di ko tere waaye bu guddee ñi dajee di naan sàngar di tëgg di fecc di jëfandikoo seeni jigéen yonent yàlla man bi mu ñëwee ba bugg a génne loolu bi islaam wàccee tëbul rek na leen bàyyi leen sàngara seeg karta gi ndax bu tëboon na leen sàngara karta ak riba dafa xaraam ci saasa su boobaa rek ñi bàyyi yonent yàlla maamat ndax nit ki lu miin bam nekk ci deretam soo ko ko bëgg a aaye dafa am noo ko koy aaye loolu ñii duwaat yi oote ci yàlla xam nañ ci dara dangay ànd ak nit ki mu wóor la ne lim nekk nii sax xay na du noonu waaye nga ànd ak moom di ci naxanteek moom ba rocc ko ca moo gën nga ñëw ne ko tooba gi tey laa ko ji saxal mbaama génne la doo am mukk mukk tool taalibe bi tey laa la bindal mokkalal téere bi tey wala ma dàq la doo am taalibe kii nga sóob ci yàlla tey laa la sóob na nga egg tey tey ci yàlla wala ma dàq la doo am taalibe tey nga am soxna soxna si tey lañ la ko muural tey laa sëy ak yow nag na nga ëmb tey tey tey tey doo am jabar doom du ñëw moo tax sàngara itam ak karta lu muy bon bon aaye yi ci wa njëkk a wàcc yëpp ñëw doon pour aaye ko waaye dañoo dem ba ñoom jullit ñi biñ sakkanee tuuti gis nañ bon boni sàngara bi mu ngi doog a ñëw ci ñoom parce que lu baax ki ko xam ki xam lu baax mooy mën a xami lu bon biñ demee ba gis yonentu yàlla Muhammad ak mbaaxam gi ci lañ dogo xam ne ndeke sàngara nii la bonee ak karta léegi nag ñii euh, ñii tawat loolu ñoo moom ba aaya ñëw ca maida xaraamal ko ne sobe la liggéeyu seytaane la na ngeen ko bàyyi waaye lu jiitu aaya booba xaraamu doon fii nag ci baqara moom dañ koo laaj sàngara karta mu ne leen am na njëriñ am na njëriñ lu ci nekk waaye euh, métit géeg musiba yi ci nekk ak fitna ji moo ëpp njëriñ li sama borom nee ko yes aloo naka danañu laaj la xanil xamri ci sàngara wal maysiri ak karta sàngara mooy li ñuy bànneexoo ca guddi ya di naan di fecciloo di sëy ak seeni soxna carte mooy la ñuy utee alal waaw duñ sonn duñ liggéey ci carte lañuy ñuy alal saa ngeñ saa perte boole ko ak lan riba dërëm ñaari dërëm yàlla ne ko buñ la laajee xul tontu leen yow yonentu yàlla muhammadu na leen fiihimaa nekk na ci carte ak sàngara de ismun ah, fitna kabirun bu mag jamono booba xaraamut ba ñuy wax ismun bàkkaar ismun fitna kabirun bu mag mooy mbañante gi muy jur xeexoo bi bu dee ca sàngara sa saaga wante baa xeexoo ba ba fa nekk ak wéradi gi muy def ci sa yaram waaw yóbbu gi muy yóbbu sa xel bu dee ca kartagala moom itam xeex ba ca nekk ak lekkante alal ak ñàkk gu bëri ga léeg nga jël ay junni ñàkk ci benn bis dégg nga loola mooy ismun kabir waaye wa manaafiun li naasi am na njëriñ itam nag ci lenn nit ñi mooy ña koy naan da ca bànneexoog ña koy jaay da ca am xaalis e, ca karta ga ñay mooy wa manaafiun kon ca jamono booba nga xam ne araamut daf leen ne am na fitna am na njëriñ waaye wa ismuhuma fitna bi nekk ci naan sàngara wa ismuhuma feebar bi mu la mën a jural wa ismuhuma dégg nga ñàkk gi la karta mën a jural akbaru moo gën a garaaw min nafi ci njëriñ la ngeen fay jële waaw ngeen xam loolu kon bi aaya bi njëkk a wàcc waxoon ne wa min samaraati annaxiili wal anaabi tattaqisuuna minhu sakaran wa hasana mu mel ni jamono boobu daf leen doon taggal sàngara di leen wan Euh, am na ci xenab yi yoo xam ne man ngeen koo nal am ci sàngara am ci lu ngeen a jëfandikoo ak warsak di ci jaay ak yi mel noonu waaye euh, mu dagan ci ñoom ñu dem ba mu yàgg mu ne leen léegi euh, sàngara daal fitna ji bëri na de même bu fekkee am na njëriñ it am na fitna ñu dem ba mu yàgg mu ne leen Abdourahman bun Awf ñu ne moo moo moo moo leen invite benn pati ñu ne céet la woon ca tàkkusaan ja ñi dal di màndi gannaaw bu lekkee léegi nag ñi dem be ah waaw ñi dal di màndi gannaaw ah, ah, timis jot nag xam naa ñi jiital kenn ci ñoom muy jàng xul yaa ayyuhal di ko yàq yàlla ne nag laa taqrabu salaata wa antum sukkaara léegi xaraamut ba tey de waaye ba leen jege julli fekk yéen a ngi màndi kon da ngeen di mandi balaa julli ngeen xeeri waaye ànd ak fitnaante ba léegi rek ba aaya ba ñëw ci suratu maayida ne yaa ayuha allazina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali seytaan fajtanibuhu laalakum tuflihun innama yuridu seytaan an yuwaqia baynakum al adaawatu wal baxdaa fi lxamri wa yasuddakum an zikrillah wa an salaati fala antum muntahun sahaaba yi nag ne intahayna intahayna intahayna allahuma intahayna omar ibnu xata ak ñi ni moom kon sàngaraangoog noonu la garaawee ci jamono ji may wax ak yow nag moo carte yépp lañ boole boole ko jaamu xiram ak pettaaw yépp ñëw ak seed yi le lépp daf ay alquran daf ko xaraamal dégg nga euh, loolu mooy loi bi mujj léegi taxaw ta sax mooy sàngara dafa xaraam carte dafa xaraam jaamu xiram dafa xaraam pettaaw dafa xaraam seet dafa xaraam lépp dafa xaraam yooyu yëpp dafa xaraam ñu xam ko kon wa ismu akbaru min nafihima su ko defee dégg nga ñu ngi ñuy wan ne suñ taayam jeex na buñ dellu see incha allah danañ continuer yow ci laaj boobu di yasalunaka anil xamr ñi gën ko leeralaat ci jaami yàlla yi ndax mu ngi def musiba wu rëy rëy rëy ci dëkk bi te mooy mandi ak karta yal nañu yàlla wan dëgg dimbali ñu moytu dëgg eh, ñu ñu ànd dëgg yal nañu yàlla wan caaxaan te dimbali ñu moytu caaxaan wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wala siyama xubbun أنت برأه تكون طريدا في مواقف مجمعي وذلك هب القطب أحمد سيدي وذا موقع الأسرار في كل موضعي الحمد لله